28 avril. waaw waaw defe naa am nga yow ah. moom defe naa am nga. loolooy gaal gu wóor gi nag am nga gaal gu nga ci gaal nag yow. man gaal gi may wax ne de ma gën a wóor ah, gaal gu 28. avril ah gi daa dis de. li eh, ma la man <laughs> gaal gële. moom a nga dugg waaye déggoo li ma la. jaas man sama njaboot yi si kasa bi ñoo ma gënal gaal gu Alioune Seye gii. gaal gu Alioune Seye gën a wóor ndax lu nekk nga ci. ah déggoo li ma <laughs> amul as de foofu amul asukaay de. amul asukaay de. billaay amul asukaay. te na moo daq bëre mille coins man naa bëri de. nee na junniy coins. daal benn la. dama ko laaj ban jël la mos daan te daanu ma laa ko laaj ban jël la mos a te daanu ma yow koo xam ne du mbot du yenu nga ne yaa dàq bëri. da cee boole yu dóor léegi de. dóor yu métti la làmb ja jeex moom ah, moom la doon wax loxo bi de léegi day dox moom la tuddoo euh, làng ak dóor làng ak fayoo ko tas ah. léegi déggoo ma de. langa dóor langa fayu moo ko tas. man Lac Rose bi may bëree moom lu ma wax mu ne ma day gën a métti say dóor. Hmm. ma ne ko jours yi nii laay def mais dama na mosoo gis mbër mu ñu daan mbër mu daan bu pare ndax mos nga gis mbër mu daan bu pare ñu dabu ko di ko dóor mos nga ko gis. Ah? kii nag da di bu la bàyyee da xam foo jaar des fois. ma ne boo ma ne ndax dóor mu daanu yi mu fi jàppee gars yi fan yi Alioune Seye 2 dafa doy waar de. boo mënee bëri ab xeex coono la. dégg nga li ma wax waaw waaw ma ne boo mënee bëre ak xeex arab coono déggoo ma de. mais nga yaakaar kor yi la àll yi la lagros def bu la ko Alioune Seye defee est-ce que baax. est-ce a loolu dina am yéen yéenay bëri làmb ji te ñëwagul de. dañuy laaj di. <laughs> ma ne. làmb ji yéenay bëri làmb ji te ñëwagul. waaye incha allahu rabi. Ah. yàlla dina ma may ndam ma dugg bari fee de. ci Alioune Seye. waaw ndax la yàlla dogal. waaw hmm? ah, maa ngay ñaan suma borom bu ba ban anam nga yaakaar ne ci la ci la ci ngay amee ndam bu dee ne coono mooy maye ndam bu dee ne xale mooy maye ndam bu a noonu la demee laaj ci ban anam nga yaakaar ne ci ngay amee ndam ma boole woon a la roi des arènes bi sax dama gëm ne ne timis fu ñu julee ma jël sama roi des arènes ànd ak moom ñibbi ah, man loolu laa gëm waxu Modou Lo la wax déggoo man loolu laa dégg am na lu muy lépp daa man am déggoo li ma la man daa am kuñ ma dencal ikiri waala si kanam kooku laay wax ah yaa ko tudd de. moo fa ne de bu weesoo. maanaam dugg Alioune Seye gii daa am loo loo doon. mais parce que Lamine dama ko mës a jël bi mu bëree ba euh, jamono yële passé. mu ne Alioune kii Lac de na ma may sens ngir yàlla moo ne xale yi ab ëpp yar lay may sens. Ah, maa ngi koy ñaan na ma may. ngir nee na ma bëre benn combat tu loolu la. la nga bëre benn combat waaw lii la tontu moom proposé Alioune Seye néew ma sa di xalaat Alioune Seye moo sa si moom. waaw deuxième bi mooy que Igri Wala duggoon naa fa. koo fa daanoon Alioune Seye comprendre nga de moo indi Alioune Seye. jaaz ma daan ka jaaz moom moo ko indi woon ma daan ka deuxième bi maa ngi nuyu suma ndijaay tamit géejawaay maa ngi koy nuyu bu baax tubaab maa ngi koy siyaar bu baax sama ndijaay Uh, Omar Samba Ndoye maa ngay siyaar ba di nuyu Moussa Fall tamit xam naa ne combat bi dina difficile. Moussa waaw combat bi dina ah, difficile. ci sama ndijaay la Moussa sama lépp la sama lépp déggoo ma de mais xam naa ne combat ma Alioune Seye. bëgg dugg ci dëkk bi sama ndijaay dëgg la yàlla bëgg sama ndijaay la Moussa bu Sa Thiès. waaw ah. waaye Moussa lu mu xewle ngaay kenn du ma fa comprendre hmm? kon tey du làmb ji mooy taxaw ma daw sama responsabilité loolu. ma ko def ku wér si mbër mu mel ni Alioune Seye si si seen yaakaar. ah am. ah man yàgg na loolu yàgg naa ko ah, dégg. li Mamadou Diouf wax loolu man damay partage avis bi de. Ah, ma ne Alioune Seye 2 bi ma gis jamono ji ah. man mbër mu ma bëreel. li li muy bëri ak li muy xeex. ma ne mbër mu ma bëreel xam lu ne si làmb. mu koy waxaat sànq lu ne si làmb. Hmm. mooy ñu tegal la mbër ñëpp ne kii moo la man mais xam naa ne Alioune Seye Sénégal du ñu wax moo man Coins ñi farax moom ñoo naan moo man te c'est normal. ñi farax moom man man de du ma ne moo la man mais dama la naan. Ah. adversaire de taille nga am. waaw ah. vrai adversaire parce que li tax ma wax la loolu mooy Alioune Seye dafa mën a bëri. waaw ah. loolu moom yow xam nga ko yow. Mhm. te Sénégal yëpp xam nañ ko. Mhm. te Alioune Seye da cee rax léegi xeex. combat bi daal lenn la ba si ëppalee te chaque jour taay ñàkk ma ki ñaan wax moo ma gën a yaru. loolu moom xam naa ne moom nga ëppal ci làmba ji. yéen ñaar nag ku gën a yaru moom. dinañ dinañ naqaree liggéey moom moom moom a gën a yaru non non yow Alioune Seye doo ko gis mu wax lu ñaaw. doo ko gis doo ko gis. non man maa trois soo ko moo jël dos man maa trois. non man maa trois de. man kay bàyyi seen ginnaaw biir géew moom soxla ñu fa biar biir géew ba ko xam ne boo mënee boo mënee fat bëtu jàmbur fat ko boo mënee wekki bañ wekki waaw mais loolu si biir sport bi la si biir sport bi la waaw moo tax Alioune Seye maa ngay ñaanal jàmm ba le 28 bii di bëri si jàmm di bëri fi doo tamit di ñaanal père garçon di ko ñaanal euh, yàlla muy ko wér ba le. ku am question pour Quench ku am question yéen ñi commentaire bi euh, ba père Gaston mën a ñëw toog si làmb. yàlla ko yàlla def mu ngi nii loolu. yàlla na ko yàlla def yow mu ngi tamit dama jot dama jot dama dama jot ay yóbbante ñu bëri nee nañu Quench dafa yéex dafa diig. Mhm. dafa diig diib da nga diib trop. Mhm. loo loo leen di tontu. mais xam nga da daje gis nga mbër bu gaawee. waaw boo ko jàppee rek mu yee. ma ne mbër mu gaaw. waaw saa yoo ko jàppee da yee nga yee. waaw man bi de xam la laa gis. Hmm. mooy di di def luy gën a wér. di gën a wér waaw. ah looloo tax maanaam man bu ma jàppee dama fi dul nekk di jàpp daa di kërëb kërëb yi. tax boo ñëwee boo ñëwee. man bu ma jàppee déggoo li ma la damay xool fi mu gën a wéree ma fay gën a téye. gaa yu bëri nee ñu xëccu mbaal ni moom ngay jaawaleeg biir géew bi. ba tey parce noonu ngay bëree. waaw ba tey mais nan lañ koy waxatee ñam naa ko neex na bàyyi naa bàyyi naa am na fen li may def maa ngi am ndam wala ah, am na boobu fa laa di si ami ndam ah. gàcceeg dóor gàcceeg daan fañ na te bu may dóor jour si nii laay def damay boot samay loxo loolu moo la ko digal loolu Modou euh, ma ne loolu laa waxoon Lac Rose xanaa laajoo Modou Anta bokkul de laaj nga Modou Anta man déggoo du ma du ma mbër yi ngeen di wax Alioune Seye rapport ak. Tafa Gueye nga jot yu man su ma dëkk man lañ yaakaar ma ne man su ma dëkk man yaakaar tey boo demee Géejawaay ay mbëri mbëri mbëri ñoo fa ne. comprendre ñoo xam ne boo boo tuddee seen tour si làmb mën nga fa lim dix personnes. bari ñi boo fa limee ñaar ñett du ñeent. Ah, si bëri dóor. Ah, mais booy ñu ngi suuf di bay seen waar. Ah, comprendre man nag suma dëkk dañ ma yaakaar am nuñ ñu yaakaar si man muy roi des kon man du damay ñëw di kaf wala dara man lu man am naa am ndam dafa yee dafa diib dafa nii lu ma naan naa am ndam. combat bi yaa ngi ci liggéey yaa ngi ci taxawaay xeex xeex. Ah, eh. non non man man moom man moom man moom. xeex eh, moom da ngay jox ñiy daane daane kat. erreur mënul weesu ngay dajeeg Alioune Seye numéro 2 nekk kara liggéeyoo xeex ko bàyyi li ngay def. <laughs> fii daal doo dem armée la ah, baax na doo dem armée la bali laa yóbbu ah, lii la Mamadou Diouf wax tamit jar na bàyyi ma la mooy du fii laay toog naan damay defee. du fii laay toog di ko wax de mais li ma war a yëpp maa ngay def non li ma la c'est simple ndax yaa ngi ci liggéey quoi. non déggoo li ma la maa ma di question boo da siy def ko déggoo ma de. Eh. le jour daal daa am lu ma mais ci côté bëre eh. parce que Alioune Seye bëre da koo def da koo man ah est-ce que Quench am na lu muy xaw a lu ko Alioune Seye. war a da nga seetaan contact yow da nga seetaan Alioune Seye contact waaw waaw mais seetaan na eh, ay combat yu bëri la seetaan mais da nga seetaan contact eh, non non da nga seetaan lii ay question yoo xamante ne ñi ko da nga seetaan mbapat déedéet coach déedéet voilà ma da nga may laaj ñii ma seetaan mbapat ndax mën naa bëri wala mënu ma bëri non waxuma sax mën a bëri Aliou Seye bëri Aliou Seye laa wax non moom na mille fois mooma daaxa bëri na ma daaxa bëri rek nga loolu wax léegi la jour ñu weccee na jël bëri ma jël xeex est-ce que nangu nga li mu wax ne mille fois mu daaxa bëri kooku day théâtre rek yi commentaire ñu ngi lay posé ay questions. wóyul gars yi Ndiaye Bàcc nee na laajal ma Quench ñaata combat la ñaata combat la amagul maa ngi. 15 combats. 15 combats 13 victoires benn défaite benn match nul. 15 combats 13 benn défaite benn match digganteem ak Diène Kairé. 15 mhm. euh, juin 2019. Macky Anne nee na yéen ñaar ñëpp ay pieds droits ngeen. Mhm. nee na da nga koy attaqué wala da koy xaar. déggoo li ma la lu mu laaj lañ la jours yi maa ngi tamit du nuyu site internet yëpp ñuy commentaire si lii tamit mhm. si euh, réseaux sociaux yi ñëpp maa leen di siyaar bu baax mhm. den wax ne commentaire yi moom saa day positif saa mu négatif mhm. lu mën a am daal nañ si boole yar ak teggin rek loolu laa leen di lancé waat parce que bu samay soppe duggee ma faralul duggee na koyn si du nangam nangam ah. ku ma faral tamit bu ko di ko dépassé loolu dama koy waxaat chaque jour bu may dee Aliou Sène aussi nee na ndax déwén dangay ñibbi si bari kala nee na ndax da ngay ñibbi bari ñu dégg. pour laaj boo question. Aliou Sène. Aliou Sène nee nga maa ngay ziar bu baax a baax. da nga ko maa ngay ziar bu baax di ko bëggee lu bari tamit. tontul ci question. comprendre nga question mooy li ma siy tontu mooy man ma des Lamsaar ma des bari ñëpp benn la. Hmm. mais ñoom waa Lamsaar xam nañ ne yàgg yàgg damay ñibbi bari ñi. comprendre yàgga yàgga damay ñibbi bari hmm. hmm. mais su ma ñibbi bari ñi su ma toog Lamsaar benn la ndax moo demoon bari ñi tamit. Lamsaar laay contacté. parce mm-hmm. que dinaa am combat tamit ñëw si ah igri bi di contact ah sa maa dem igri kaay baax maay dem igri lébu gi ah, maa ngi dem igri kii moom sa soppe la ndongo bu Quench nee na laajal ma ko ndax dina dëggal boppam waaye loolu jarul laajte <laughs> jarul laajte quoi <laughs> ndongo bu Quench la tudd ah mat na sëkk ñu ngi koy ñaanal tamit moom ndeysaan day ñaanal papaam samedi ñu koy ñaanal paa yàlla xaare ko àjjana fii taw si du nuyu bi yëpp du nuyu suma soppe yi tamit ñoom ñëpp maa leen si siyaar bu baax Mm-hmm. di ñaanal ñi nga xam ne tamit dañ ñàkk seen bakken tamit yàlla xaaral leen àjjana fii taw si di ko ñaanal ñëpp. ok yàlla yàlla nangu ñaane dinañ ci ñëwaat Babacar nañ ñëwaat ci sëtu Falaay bi. dafa am benn benn sama benn papa bu nekk Espagne père Baye Dame Ndiaye. Hmm. maa ngay siyaar bu baax moom chaque jour bu ma nee installé dama koy fàtte. Hmm. te yàlla seede na moom lu ne la waxuma la man sax lu may defal mais fu mu teg sama papa di ko dimbali si côté bu ne comprendre sama papa bu day moom day nekk Espagne sama papa jël nit naka diw jëlal ma diw. mu fat ko foofu si këram moo xam man naka am man ko da koy def. waaw ku mu gis sama sama papa moom moom mooy li ma koy wax chaque jour ma ne yow moom. yow mu ne doo a mel ni man ma ne ko yow mel ni sax <laughs> koo xam ne tey ni da ngay wax soxla day dem lebi. jox la déjà bor barke Serigne Babacar jour ma ne yàlla bu fi yàlla bàyyi billaay wallaay man xam man yërëm ma la de man gëm naa ne di si àdduna comprendre nga su moom moom euh, la lañ koy wax moom la lañ koy wax waa bari hmm. ñu ne ko yaay réglé problème bu bari yëpp waaye sa kër mënoo si réglé dara billaay wallaay ah, mooy loolu sant ah, yàlla la waa maa ngay ñaanal yàlla guddal fanam ba ñu mën ko taral fii hmm. parce que man suma papa ak suma yaay ñu bëri dañuy daw dem si seen yaay d'accord que suma yaay moomu gën a yërëm man hmm. mais man suma papa dama am ñeewental si moom parce moom moom sooley nit ñi daf ko daf koy jël daf ko sooley boppam te daanaka sax saa poosam du demee noonu. comme moo tax ma ne ko père bàyyil jël boo ñëwee laaj ñu ay cent mille ka toog doo yor dara loolu baaxul. loolu day far day ñëw sax jox ma loolu. waaw loolu lépp la. comme bala nga ñëw ci saako mu ñëw ci Quench. waaw Quench Quench. paa yu bëree bëri boo leen seetee dañu naan.